deuxième thème bi ñu defee ko Gueule Tapée ñu aborder les services de base l'électricité l'énergie de façon plus globale hydraulique ak assainissement foofu ñu wan fa nit ñi li nga xam ne moom la président def yépp ci électricité ak ci énergie en termes de qualité en termes de baisse des lan la yóbbuwaat ci nit ñi en termes de revenu loolu doon waxtaan bu am solo ñu dugg ci hydraulique bi ndax actualité bi dafa doon dañu jóge woon ci benn épisode incident manqué ndox ci Ndakaaru nit ñi opposants yi bëgg koo def sujet de campagne keroog nag ñu waxtaan ci expliquer nit ñi incident ba nga xam ne moom moo amoon ba ñu biibiroon loolu ci samedi bi ak dimanche bi rappeler leen tamit ne leen li tax xëy na mu jafe mooy ne Sénégal Dakar surtout dañu fàtte woon coupure yu ndox ndax liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la président liggéey ba tax réserve ndox yi daan am ci kër yi amatu ko woon loolu moo tax xëy na ñu bari yëpp yi metti woon ci ñoom démb nag ñu demoon jëppal ànd ak suñu frère Ababacar Sadekh Bey directeur port ñuy waxtaane les infrastructures dal di def nag un focus sur les infrastructures routières ferroviaires aéroportuaire et portuaire loolu nag moo may may xëy na ma dugg ci question bi ñu ma posé léegi sur les réalisations dans le secteur du transport aérien les réalisations ñëpp gis nañ ko bi ci gën a rëy mooy aéroport international Blaise Diagne bi nga xam ne ubbi nañ ko daaw le 7 décembre 2017 ma rappelé leen nag ne bi président Macky Sall di ñëw ndax dégg naa tey sànq ko wàcc aéroport ne moo moom aéroport bi ma ne aéroport bi nag Sénégal ko moom ak sénégalais yi rappelé ko nag ne aéroport bi bi président Macky Sall di ñëw au pouvoir dafa fekk la réalisation financière maanaam xaalis biñ ci war a def ñu consommer quatre-vingt pour cent yi donc téeméer moo jël juróom-ñetti fukk yi consommé woon nañ ko ba pare te travail bi physique tolloogul woon ci trente pour cent loolu la fi président Macky Sall fekk ci aéroport international Blaise mu dugal ci loxoom nag jàppale ñu ci am na ku ko fi wax sànq Pape Ablaye Seck avant muy dem wax na ne aéroport boobu président Macky Sall dëgg ko rëddaat ndax nañu ko defee woon su fekkoon ne woon noonu la euh, ubbee aéroport bi Sénégal dootu ko moom ndax laxasoon nañ ci jaan ba nga xam ne bu aéroport bi pare woon ay nit a koy moom waaye sénégalais yi duñ ko moom ba mu ko rëddaatee nag ñu liggéey ci mu andil ñu ay partenaire loolu moo ñu may ñu yeggale aéroport bi ba tey ku fa wàcc mu nekk fierté mu ne bu ñu yem ci aéroport principal bi ndax bu ñu amee benn aéroport rek amaana nit ñi dinañ mën a jóge extérieur di ñëw mais du ñu mën am transport intérieur te désenclavement wu terroir yi dafa bokk ci programme mu président Macky Sall pour ñi ko liir PSE bi première volet bi ak programme bi nga xam ne moom la ñu ne moom la ñuy defal 2019 2024 muy liggéeyal ëllëg mu ne ñu bëgg naa dëkk yi am solo yëpp aéroport ba fa nekk ñu defaraat ko loolu moo indi programme bi ñu lancé Saint-Louis bu yàggul ci décembre bi muy reconstruction maanaam tabaxaat juróomi aéroport bu Saint-Louis Matam Ourossogui Kédougou Tambacounda ak Ziguinchor mu am yeneen yoo xam ne it dinañ fa liggéey loo xam ne dina ko defaraat muy Kolda Sédhiou Cap Skirring Kaolack Linguère yooyu yëpp day aéroport yoo xam ne dañu koy defaraat pour que Sénégal am maillage aéroportuaire boo xam ne ak le réseau routier et aéro euh, autoroutier le réseau ferroviaire dinañu am dëkk boo xam ne ku jóg di nga dem fi nga bëgg dem dellu si ndax dégg naa keroog Seydou mu ne. léegi distance yi kenn waxatu ko en terme de kilomètre léegi en terme de temps lañ koy wax dañ la naan Dakar Touba une heure trente la kenn dootu la wax cent et quelques la wala deux cent et quelques kilomètres loolu nag ma fàttali démb bi may wax ci autoroute yi fa ñu jóge woon defe naa ñun ñi dëkk centenaire su ma ko waxee ñun ñëpp dinañ ko xam ba ñu nekkee gënee nekk ndaw te yàggul lool ndax ñun ñu su suñu waxaanee autoroute diggante pompier ak Patte d'Oie lañ daan xalaat ndax looloo fi doon autoroute te duñu tudde sax autoroute ba président Macky Sall ñëwee non seulement léegi ñu ngi ci plus de deux cent kilomètres d'autoroute te dama ko fàttali it ne keroog ba ñuy ubbi Ila Touba la nga xam ne moom la sëñ Mountakha Mbacké ñaan yàlla na bi yàgg lool te wér ne ko yal na la yàlla may ba nga yëggali sa liggéey nee naa leen képp kuy taalibe war nga bu sa sëriñ ñaanee nga ne amin te amin bi mooy nga liggéey ba la mu ñaan am loolu mooy amin bi moo tax ma ne kuy taalibe rek war nga fexe ba Macky Sall am nu mu yeggalee liggéeyam li nga xam ne nag moo des ci transport aérien mooy Air Sénégal compagnie ndax ba Air Afrique de di ba tey compagnie bu ñu fi am dañu koy taf yëngal dem loué ji aéro avion yu màgget au bout de deux ans mu dee président Macky Sall ne ñu dama bëgg ngeen étudier ma naka la ñuy def ba bu ñu amatee compagnie compagnie boobu du dee ñu jël attaque lu topp di jàngat ban avion la ñu war a am ak fan la ñu war a dem tey jii Air Sénégal. mu ngi ci ñeenti avion yoo xam ne moo ko moomal boppam ñaari avion yi nga xam ne ñooy dem Ziguinchor ak intérieur bi ak voisinage bi jënd nañ ko 7 décembre 2017 lañ ko njëkk a présenté yeneen ñaari avion yi ñu jënd benn bi moom lañ ko présenté barka démb ci aéroport international Blaise Diagne muy A330 900 néo boo xam ne docteur Pape Ablaye Seck wax na ko sànq ñaar lañ ci livré gu ci àddina bi benn bi Portugal lañ ko livré benn bi Sénégal lañ ko livré compagnie américaine bi Delta sax jotagul bosam loolu di am lu am solo ñaareel bi ñu di ñu ko war a livré ci deuxième semestre bu 2019 muy ñeenti avion yoo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp jënd ko mu bees consommation carburant bi nga xam ne mooy daaneel compagnie yi doon consommation bu ndaw ñu dollee ko nag ak yeneen ñett yoo xam ni dañ ko war a jël en location xëy na ñi koy wax dañu dul xam ñiy wax location léeg-léeg du ñu xam nu compagnie di doxe ndax compagnie yu mag yi nga boo gis genn wàlli flotte da koy moom genn wàlli flotte bi mu luwe ko noonu la compagnie aérienne di doxe ku sa flotte yëpp nekk location doo dem ku sa flotte yëpp nekkaloo moom doo dem loolu mooy pratique bu secteur bi te loolu la ñuy liggéey Sénégal muy loo xam ne mën nañu ko wax ci bilan bu provisoire ci transport aérien te li ci kanam rawuli bët ndax fa ñu jëm dañu bëgg a wàcce Sénégal à 380 aux couleurs de Air Sénégal loolu mooy suñu ambition